asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yëpp yéen mbokki taalibe yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm itam dikk nag tey màggal bu mag bi nga xam ne moo jëm sunu kanam te ñu ko wax màggal gu mag bi te ñu ne nag ñu ne wane na borom doole na ko ci mooy la bëgg a leeral bu wóor fi nga xam ne fi la màggal gi sosoo ak li ci dikk loolu li ko ci indi wala def na waa ji sëriñ ko waa bi ko saytoo juróom ñaari at la ko yàlla may mu dëkk ko fi ak lu juróom ñaari wàññi ma war a tolloog ama jëy sëriñ loolu li ci dëkk biir ramalaanam muy def muy def lu ci kaaf ci jàkk bi nga xam ne tey mooy jàkk bi sëriñ Mbacke ma dinañ defaraat ci jàkk boobu fi ràññee di fi def lixtikaaf rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama sooye ko ànd ak gaayam yi nga xam ne ñoo dut àndam te du tàggu ñoom ba mu leen gisee nag di kii yëpp nag daal di jëm ci bëgg a bokk ca gaa yooyu di ànd ak yonent bi yonent bi xamal ko ne ko loolu day dafay lu jafe ngir ñu ngi si ñu ànd ak man day seeni deret la ñu tuural te tuur deret moom muy ñoo tuur deret la gëstu ko santaane lan lu mën a mën a bokk ci ñoom lu jafe la itam loo xam ne des koy yëm te du ko bokk ak kenn te da koy rafetal ba mu jeex mu door ko mën a am damaa bëggoon damaa nga toll nga ci ñetti weer képp moo waratee nga mën a nekk xut bu sawan ndax kenn du ko nekk ci teew mooy ñeent fukki at te ñetti weer dox dox sa diggante ñeent fukki at mën naa laa tegal ñetti weer yi bu suuf tey daa lay def ngay xut bu sawan mu xaaral ko ne ko loolu rafet na loolu neex na waaye sama gis jënd na ko te waaye sama bëgg-bëgg mooy mbooloo mu ngi ànd ak yow mu bokk mu xaral ko ne ko ñoo ci boole day dafay diis ngir dara ànd ku toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo mu dama ci bëgg dara lu may bokk ci waaye lay tax mu bokk ci nag li nga ko ko yonee dafa dafay dem ba nga xam ne dañuy mujj dundu ko waaye kon dafay dafa yàqu waaye kenn ku ko yanu yóbbu ko nga bokk ci amagul kon nag dañoo fexe yow doo ci tàbbi ngir am nga ci man ak cofeel koo xam ne cofeel ji nëbbu wut te du mën a mën a dindi lu wut ci ndax mu mën a dindi boobu jàmm te te du ma nangoo kenn jàmm ngir kenn mu ne ko man daal damaa xamul liggéey ma yàlla lan lay doon waaye yit sakku ma ko day xam ne attan ak lu dul attan waaye li ma mën a waat daal mooy ak li mu mën a ñan bu ko réew bi attanee daal sama jëm dëkku la ko moo ko baax na kon nag li ma lay xamal moo di li mën a ñaan nangul naa ko kon nag monsieur daal di yaatu dëkk bi génn ko ñu koy gàcce nag nga assuré ni jamono te yii bii dëkk it aaree aaree sa la ko ba aw xay dina fi fekk yii ku doon dugg ko nga jënd dëkk mais nag sa bés ba mu waree rek daal di jëm dëkk dem dëkk boobu toog dafa naa ne sa wàll la fa am seen xibaar yi seen xibaar mu xaram safa di ko jàpp yóbbu waaye bu ñu suñu jëlee te fukki fan ak juróom-ñett wala ba nga xamante ne sëñ bi dafa ci dem na ndax borom laa xaral ko ne ko yabal naa ñu koy jàppi ci biir dañu ko bind ay waata woof ay weer yoon dikkut sëñ bi dafa ci xamal ko ne ko benn bataaxal bu ma sëñul bu koy waat mu caa jot bu ñu ko yow di jëmmee ne fa moom nga bàyyi ko waaye nag boo ndax jàpp nga ne ku koy woo dana wuy si mu ne ko nattab lu ñu ko mu ne ko kon nag da ngaa sant chargé ba ci jëm fu leen su ma tee nga jaraaf fekk ñu toog fa ba ci si waaru ëllëg yeneen fu fekkut nag ñu ne ko fekk ba mu ko defee sëñ bi rëwaat na loolu ma ne ndax njëgu saxaar wàcc lu góor góor gi ñuy wax sëñ Omar Ndiaye te mu njëre moo ko jox fasam yaa fa yaa fa la ñetti at ci rek waxu wala tërëf waaye tërëf tërëf waaye tërëf sax du ko def mu war fas yéene topp guddi gi topp guddi gi ki ñu ko boolee nag mu war ko woon yoon wi dina am ak loolu dem ba ci yoon wi mu ngi mën tàyyi na tëdd boole ko ak benn pël mu doxal pël bi tuuti pël bi wér gëstu ko bi gisatu te mu dama fee def dara lu may fa bàyyi fa suuf si ñoom rek di wax ba jamono yi ñuy nodd fajar mu yegg mu mu yegsee fekk na sëñ bi génne na yére yi yëpp la nga xam ne daan rek a ko waral bu bu ñëwee ca jàpp ñëwee ca jàpp bi di julli woon sëñ bi ñu ne ndax ceerno yëg seegul ñu ne ko déedéet waaye dañ ngaa saa sëñ bi ceerno yëg si na moom sëñ ma ne gis ko daal di ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko kon sax waaw waaw ànd ak ñun dem ci kër ga ceerno di ko bëgg a nekk ay waa ba mu demee dugg buntu kër ba mu ne leen bit ñu ne ilee sa indi la mais maa ngi bëgg dugaat ci kër gi te sama borom xamaloon na ma ne teg dugaat ci kër gi ayaan ma ne ko def daal di leen bëgg taxaw ci ëtt bi ceerno yi bëgg a wax ak moom mu ne ko bu ma yàggal dara jëru ma wax ceerno li ma la bëgg a xamal moo ni bëcc bii ca ngoon bëcc bii ca ngoon ba nga taxawee ak waa bi ak cedd bi ci Louga ngeen di wax nga taxaw ci lu mel ni ab dett ndar bu am daan jëf dett ndar xoolal roobu yi doon dox ci say tànk ñu ne la wóor maa ngi doon gàttal ak ñoom ceerno di mu sànn damay liggéey yi dong sama njaboot bi rek war a dénk ci lu mel ak foofu ñu téye ci biir Sénégal ba yàlla ñëwal wala la raw xedam daal lay wane it ni joo ba ñi nga xam ne xala sat sandona la dafa war a ko sunu borom daal di booy ahlu bayt ñu mësta teqal ko ñoom wala ñooy sababa doomu adama dootul dara fi moom kenn wéetu ko ragal loo ku dul yàlla kenn wéetu ko gis loo ku kenn ku dul yàlla mënatu la ñëw ci tamit ngir dañu rey nañu ko jëttal te bëgg bokk ci ñoom rek ku taxal jëpp bu ma ko defee ñu daal di ko yóbbu bu ñu ko yóbboo soo xamante ne bis boobu dël si la bala ñu xorangal fa mu neen yóbbu ko feneen fii ji ñu ko tegoon lu fi jóg fi jóge metti métt dugg si bu jëf si daañu ko dolli fitne di ko fàttaloo jóg jëm bi mu topp ko ak ñoom ba juróom-ñaari at yi mat juróom-ñaari at yi nag bu ñu matee ci la ko suñu borom wane nañ ne ko seen liggéey yàgg na liggéey di jiwoon dafa nga ko fii kat jaarale nañu ko ci ay barab yoo xam ne yonent bi def ko aw ma lu ma lay julli lu weesu lu mu bëgg a dikk rek danaa la ko yëg loolu nag ñu ñëw nag noonu yore na pare xam nga sax bëgguñu ko daane de boo xam ne bu ñu seex ci biir xam nga wax na ne maa ngi gis lu mu xaral yéen ñëpp fekk nañ ko fa bëgg koo génne ñoom leen ndax ndigal sa borom ngeen am na ngeen ko déedéet mu ne ko soxla ko ma ne ndax laa ñëpp fekk na ko fa bëgg koo génne mu ne leen ndax ndigal sa borom ngeen andi mu ne leen déedéet ñu leen soxla amul lu mën rek jar na waaye nit ñi sëq ci ay bëgg nit ñi cëpp ñore ñu ko demal ci sëb liggéey ba mu ko ba mu ko jeexoo muy soxla bi sa ndeen ñëw ci liggéey ba liggéey bi sotti bu liggéey bi sottee nag xam ngeen baaxul yàlla ak lu mayam ak lu ñàkk a jeexalam dara daal di koy xamal nag ni ko li nga taxaw la jóg moom waxaalee su ko mayees na la ko nag waaye itam nag li ci dale dafaa gisee tukki gis lu gis bi gisatee ci àdduna nga ne wóor ne danaa la daal di pay gone yi ma pay ñu nga xam doxal naa ko mu topp loola loola mu di yàlla di ko defanteeg moom di ko defanteeg moom ba bii mu ñëwee ci njaarim nag ñu door a woore nit ñi ñu daal li ma yàlla defal sama cant ko bopp mënu ko gat bëgg naa nag képp koo xam ne sama mbokk sa mbëgga loolu ma sant yàlla si saabu waa bis bi fekkatee ci kaw suuf sababas loolu tax na am na ci taal bi yu mag ñoo xam ne sax ñoom bàyyi woon nañoo Tabaski ngir ne yow Sidina Ibrahima defalu leen dara kon moo leen defal ba tax na kon bis bi xam nañ ne ginnaaw mooy bisam dala leen ren seen xarit Tabaski ba ñu ñu sax ci suñu wal suñu ndaw ak Tabaski ak suñu dégg ñëpp di ko tudde ba ma koy santaane nag daf ne képp koo xam ne ci bis bi fekkati nga fi barab lépp loo mën nañ ko ci def li nga ci li nga ci gërëm la ci garan si kàtt nag waaye fan la ko jëf bokk na ci ña nga xam ne ba bis boobu jàllee sunu borom wax na ko te tamit ba la jël ba àggee ba mu neexee ñu bi xanaa fa nekk ne ko ba ñu Israaïla ji nga jamonoon seen yëpp kenn ku ci rek am na kër ci sama am kër ci àjjana ndaw wax na ko ñu ne da koo am waaye man de seen kër yooyu yële ci àjjana yëpp may naa ko rasulullah yi ko ko wax ba ko ko rasulullah yi waxee mu sant ko lool gërëm ko lool doon la ko saraat joxaat ko fi addiye mu ko ak nit joxaat naa ko addiye daal waaye rasulullah daal ko nangu naa ko ci biir nangu bi lépp lu yoonu addiye boo ko mën a addi day bi ji am nga ko ci wala waaye bi nga ko amee ba àggali yëf yi day du jóge woon ci man keneen dara du jóge ci man dil si ci man teel naa ko ñu ñaan ko defoo kon nag dangay dem jëppee ko ba yegg ci bis bu mujj ba ku ñu ci bind nga xam ne desee bind bi boobu waxoon naa ko na table waaye man ñi ànd ak man ci ñu ci suñu ndigal topp ci sama gannaaw li ci kër goo xam ne ñu taxul yoon ñu sàkk ko loolu rus naa ko jëm naaw sama kër sama ñëw loolu lépp dellu ci ci moom ci di ak sant yàlla rek ak sant yàlla loolu nag moo tax ñu sant ñëpp ñu dugg sant leen sant googu nag ginnaaw weesu na loxol boobu mënatu ñu wóor na ni ñun ñii ñii nekk ci jamono ji kenn ku ci ne mais mais jàll ji na boobu ba fekkoon te ne sa wàllu bopp képp nga sant doo ko sant sant doo ko mën a jeexal. kon nag bu ñu doon dara ci suñu bopp xanaa nga xam ne yéen jëfam rek ak ak ñu mayam ci leen tàbbi ci biir ci biir boobu ñu mënoon a sant la ko sant googu daal war na yomb fépp fi ab jullit nag te xam ne bëgg nga lu baax loo xam ne dana la jëriñ ci yëpp nga jëriñ ci àllaaxira xaj nga ci bàyyi sëñ Tuubaa lu mu digle loolu ko yàlla may loolu kenn nekkal lu boo gisee nga di leen sori saa su ne da nga ñëw ci ñëpp ci ànd ak pëstéer te ku nekk boo ñëwee loo bëgg nga fas ko fi ñu ne leen ñu nekk su dana lu leen dara te xam ne lii mën naa may kenn la nga bëgg moo tax ma di ko wax foofu day naa nag man ci wax ji di ci ji moom war a gor la te jëppoo ba xarit bëgg nga ci sa bopp dara rawat na ñi nga xam ne ci ndigal li ñu ñëw ci ndigal yi foofu sari yëpp ñun ñi nga xam ne ne dañoo dëkk ci Touba ñu ne dagg paas yi ñu fekk si ñu ne jàppale dañu ñoo war a gën a jóg mbaa ñu war a gën a bëgg lu baax wala ñu gën a koo yaakaar ñu wóor ne kenn ci ñoom dal naanu yàlla dañoo dimbale ñu dëkk fi ñu nekk ci sari sa dina fi fekk si waaye kon nag ñu li fi war la ñu dox suñu diggante dëgg paas war nañu cee jëm moom nit taxaw war na noo fexe ba nga tàggoo ëppul ci ñaare ko ba kenn ngay jëm dëkk bi ci wàll bu mu doon nag ñu gën ko lekk ak naan ak toppatoo la ba nga ci maraanke ci wax ni loolu lu nu war la loo xam ne dañu mën a nattal wàll bi lu war loolu ko fi jëlee def ñu itam ñu ñu dikk ak ñu ñu fekk si ñun ñett tàngoor ci tax dee fii ci rek moo amee lépp ci la moom bokk yaakaar te ku nekk li koy sonal moom nga koy sonal kon ñun ñoom am jom di góorgóorlu ñu itam ci li nga xam ne suñu war a dara loolu ñu ñëw ndimbal bi nga xam ne moom la moom la ñu yàlla dimbalee fekk ci bi loolu di ñu yàlla dimbalee kon nag loolu xam ne rek loolu ñuy digg ñooyam ñu war ci ñu war ci ñoom ñu def ko ci matal ndam gën a